jërë ngeen jëf euh, mbokku spectateur télévision Mafaatihul al noo ngi leen di nuyu di leen siyaar niñ ko baaxoo defee ci télévision Mafaatihul al Bichri waaye tamit ci weer wii nu nekk di weeru koor fii nu leen baaxoo di nuyoo it muy fii ci njaareem ci kër Serigne Touba Khadim Rasoul nu feggoo ak Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Ahmad al Bachir ci liggéey bi tey nag di ñaareelu bis bi nga xamante ne bi ci la ñu amal fulkub njaareem eh, gis ngeen ni ko Serigne Mountakha Gueye jànge ak Serigne Moustapha Joxumpa waaye nag bi ñu noppee nag eh, ñu jàkkaarloo ak ki nga xam ni eh, mooy kenn ci ñun di sunu Serigne di sunu lépp ma Fatihul Bichri duñ ko ci présenté kooku mooy Serigne Maam Thierno Mbacké moom Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Madal Bachir di kenn ci ñun di sunu sëriñ di suñu lépp sëriñ bi euh, télévision ma fatihon Bichri ñëw ngir euh, nga baaxenu tey lenn ci taarixu fulku euh, sa maam bu baax ja Cheikh Madal Bachir bu ñu tuddee fulku xel yëpp dem ci moom am lan nga nuy baaxe tey ci jëmmam ju nga xam ni moo nekkoon jëmm ju màgg ba liggéey liggéey bu rëy bi tamit ba sa waajur yi toog ko dara yàquwul. a'uuzu billaahi alhamdulilahi rabilalamin arrahman irrahim maliki yawm ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi jullit yëpp mbokki taalibe yi noo ngi nuyoo bu baax tey ziar di ziar sunu kilifa Cheikh Sidi Muxtaar di ñaan yàlla bàyyi ko fi te may ko wér te àggale yéeneen bu baax ci liggéeyam sëñ Tuubaa bi di sunu kilifa gii nu feggoon ni nga ko waxee léegi Cheikh Mamadou Muntaxa di ko ñaanal sa borom bàyyi ko fi te may ko wér te àggale yéenam ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di nuyu bokk jaar taalibe yëpp di nuyu bokk juddu yëpp ak fi ñu mën a nekk. di la ziare di bu baax a baax ndax yow itam yàlla dogal na yàgg nañ ko fee toog di ko fi waxtaan ñu ngi la ci sant ci loolu ci sax gi ak góorgóorlu gi. Euh, alhamdulilah rabbil alamin fulkul machon ni nga ko baax ni nga ko waxee rek euh, lu ñu xam la fii ci barab bi ndax euh, fulkul xam naa ne téereb Sëriñ Tuubaa boo xam ne da koo fonk lool bu ma saa wax indil ma téere sàngam wax na bu ne indil ma sama téere ba. maa ngi day daal di jàpp ni fulku ba la moo ko tax di wax kon fulku lu ñu xam la ci kër Sëñ Tuubaa waaye lu ñu xam la nag ci loxol Cheikh Mahamadou Bachir xam ngeen ne bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Moustapha bàyyi ko na fi nekku Sëñ Basiru fii ci kër gi ci la gën a bare xam nga ne Sëñ tubaa fii la dëkkoon fukki at ak juróom gannaaw bu jógee Jolof dundam gu li mujj nekk ci àdduna jàkkaarloog bokk taalibe yi fii la ko defee di fi jaamu yàlla di fi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa diiru fukki at ak juróom di diiru fukki at ak juróom yooyu lam naan liggéeyee jàkka ji ñu jàkkaarlool fee daan julee juróom néeg bii ci sunu ndeyjoor foofu la delloo ci boroomam xasida yi nga xam ne taalif na ko ci fukki at ak juróom yu ci gën a bari fii ci kër gi la ko taalife euh, dañuy ragal sax mu nekk ci barab yi nga xam ne moom la mujje ndax ginnaaw néeg bi mu génne àdduna mi ngi nii kon kenn ko xam ne daawul sori fii kon di bokk ci ay barabi barkeeloom bi fi sëñ bi nekkee nag fukki at ak juróom yooyu di koor di gàmmo di korite di tabaski di lépp it boo xam ne am na ci lislaam fii la ko baaxoo di ko defee bi nga xamee ne yàlla dogal na mu delluwaat ci borom itam xam ngeen ne Cheikh Moustapha ay tànkam bari fi lool ndax xat-xat yu mu nekkoon ci war a liggéeyal sëñ bi ci liggéey yi nga xam ne mooy liggéey yaatal gi jumaa jeeg raay beeg euh, dundal barab yi yi nga xam ne moom la féetewoo woon daan ko dundal loolu tax na ba dem barab barab bi dem na ba nga xam ne ni nga xam ne noonu la ko suñu bàyyi woon demoon na ba àgg ci ràpp foo xam ne xawoon naa jéggi tey loolu moo tax bi nga xamee ne euh, delluwaat na moom ci boroomam Cheikh Moustapha sëñ Basirou seetlu loolu xool barab bi na meloon ak ni mu mel ci yooyu jamono mu ñaan magam di kilifaam di xalifa sëñ Touba di Cheikh Mamadou Fadal ne ko ginnaaw barab ba doon barabu sëñ Touba ñëpp di fa daje mu mel nu nekk. ci wàllu ak yëngu ak xumb ak yëngal eh, ak dundal diine tey nag kenn li fa ñàkk kenn ci noonu ñàkk a nekk eh, tax na mu ràpp ma doon ñaan na ginnaaw yow yaa yor kàddu sëñ Tuubaa te yaa ngi fii fi ma dem man ca sama barab ba ma fa am nekk fa nekkal la fa di ko dundal na nga xam ne noonu lañ ko baaxoo woon a dundal may ko ci ndigal bi mu dikkee fii mu sañ ci këram gii nga xam ne moom la moomal boppam euh, dëkk fii bi mu dikkee li mu njëkk a wax mooy fas naa yéene nu ko Sëriñ Tuubaa bàyyi woon mu dellu ni mel loolu nag def na ci ay jéego yoo xam ne euh, jéego yu sore la yu rëy la yoo xam ne kenn ku ne xam na ne dem na di ko dundal di ko dundal ba euh, lam ci am defe naa ne ëpp na lam yow lam jot lam jortoon loolu nag ci biir liggéey yi mu fi doon def nag di dundal barab bi ci wàllu diine euh, ci la fulk bi mu doon dundalal Sëriñ Tuubaa bokk mu daan def nag ci jamono yi mu fi nekkee nga xam ne boobu la Cheikh Moustapha doo génn àdduna xam naa lu mën a xew gannaaw 1946 lay nekk 1945 lay nekk wala gannaawam tuuti 46 wala 47 mu ñëw fii ci kër gi dëkk fi di ko dundal bu baax ci la daan def nag bu koor jotee mu woo magi taalib yi nga xam ne ñoo fi doon nekk booba jeexit Sëriñ Tuubaa mi ngi fi booba sëñ Mat Lamin Jóob mi ngi fi sëñ ma jàmm sëla mi ngi fi mag ñu bari sëñ ma dem mi ngi fi mag ñu bari ci ñi nga xam ne fekke woon nañ fi sëñ Tuubaa ñi fi woon daana leen woo bu tàkkusaane génnee téereb boobu nga xam ne mooy téereb sëñ Tuubaa eh, nga xam ne bu sëñ Masaane wax ne sama téere ba ñu xam ne fulku la mu génnee ko di tiim ko di ko jàng di ci waxtaan di fàttaliku seen guddi yi nga xam ne ak seen bëccëg yi nga xam ne moom la daa am ak sëñ Tuubaa di ko def sëñ Mad Lamin Jóob nag moo fare woon yor ko di ko jàng waaye nag booba it mag ñi ñëpp daanañ ko fekke moom ci moom daanañ ko fekke daanañu def sax ñoom bu ñu masaa agsi ci loo xam ne euh, euh, ab xasida wala aw bayit woo xam ne xam nañu ca histoire ba ñoom ginnaaw dañoo dundandoo nag sëñ Tuubaa loolu daanañ ci faral di waxtaan di si nekk loolu muy muy liggéey bu rëy eh, di ko def mu di ko def booba nag téere ba mu waxoon fulkul machine moom doon jàngaloo waaye ginnaaw bu mu xamee xam gi mu xam xam gi mu xam xam gi mu xam eh, diggante sëñ Tuubaa alxuraan tax na mu jàngee fulku boobu ay at te boobu sëñ Amsatu Jaxate moo ko bindaloon sëñ Tuubaa bind ci ci kaw al fulkul moom la yoroon di ko jàngal mag xam gi mu xam ak alxuraan ak koor nag tax na dafa dem bind lu xes xasida yi nga xam ne yëpp sëñ Tuubaa tënkee na ko alxuraan ca yooyu jamono ñu man koo am mu boole ko def ko ab téere tudde ci kaw tudde ko xuraan yi mu wuutale ko boobu nag di ko jàng denc nag bosu boppam di ko barkeeloo mu jëm sëñ Tuubaa boobu nag moom la ñuy dundal nii di ko jàng boobu moom moo wéy ko jàng ba léegi boobu nag moom bi mu koy jàng bi mu fi nekkee di ko jàng daanaka topp ak sëñ Lamin Jóob ñu di ko ñu daan ko topp di ko di ko di ko di ko ko jàng di ci waxtaan di ci waar ma ngi taalibe yi di ci fàttaliku it sëñ Tuubaa seen bëccëg yi ak seen guddi yi bi nga xamee ne yàlla def na sëñ ma Lamin ci atam yi nga xam ne dañ fi mujjee nekk moom sëñ Basiiru ndax xam ngeen ne ñoom ñaar sorewante wuñu sëñ ma Lamin mel na ku tële amoon na benn naaru gànnaar bu fi ñëwoon mag ñi xam nañ aw turam lool xam nañ aw santam mu sëñ sëñ bi jox ko ko mu di ko ko jàngal menn at bi mu ko jàngee menn at nag yàlla dafa rekoon at moomu ci la sëñ Basiru génn àddina yàlla da war sëñ Mat Lamin tam ci déwén sa mu génn àddina waaye bi mu daaxaan génn àddina dafa wax ko téere boobu ma daan jàngal sëñ Basiru kat sama doom ji ñuy wax tafsir man na ko ma doon ñaan ñu nga nga jox ko mu féetewoo ko sëñ Mustafaa ci jikkoy taalibe ak jikkoy gor daal di koy wax ne ko man de bu fekkente ne naar bii nga xam ne moom la ko sëñ bi doon jàngaloo de du ma ko fi wóotu du ko fi du ma ko fi du ma du ma du du maanaam du ko fi bàyyi di wuti leneen waaye ci kaw bu fekkee ñëw na nekk waaye bu ñëwul de loolu nga xam naa ko man loolu moo waral nag naar ba ñëwut xamuñu dafa génn àddina wala dafa dafa ñëwul rek ndax xam nga ñooñ buñ déggee kilifa guy toll noonu génn àddina léeg ci yooyu jamono ak ni jamono jafee dañuy defe ne daanaka foofa tas na baa nga xam ne la fa nekkoon du ca bare bare dutu fa nekk Euh, loolu moo waral mu jox ko doomu sëñ Mate Lamine jooju ñuy wax tafsir tafsir jàng na ko 1967 bi gannaaw boo sëñ Basiru nekkatut di ko jàng ba 1975 bi nga xamante ne yàlla dogal na mu génn àddina rek ci lañ ko doog a jox ñi nga xam ne ñoo ko doon jàng jox nañ ko fi ku ñuy wax Abdou Guèye jox nañ ko fi ku ñuy wax Alaaji Gajaga sax mos a am at gannaaw am na ñeneen ay jàngkat ko jàng ba yàlla dogal mu agsi ci loxol sëñ Muntaxa Guèye mi ci mu tàmbali di ko jàng ñu daan koy ayayloo mook ñooñu ma tudd léegi waaye gannaaw bi nag ñooñu bi ñu bàyyee moom mu di ko yor gannaaw bi nag ci la nga xam ñoo koy jàng eh, ñu ànd ak ñoom muy say njëriñ ak Modou Abdoulaye Diakhoumpa eh, ñoom ñëpp yàlla nañ fi yàlla yàlla yàlla yàlla nañ ko def lool eh, di ko jàng ci kanamu seen kilifa Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Cheikh Ahmad Bachir moom itam bi mu delloo ci boroom tabaaraka wa taala sëñ Muntaxa yore liggéey bi bàyyee leen ko te leen ca soñ ñoom itam ñu di ko jàng ñu ngi ci di ko def yàlla na jataay bii ñu toogee nii yàlla yàgg yàlla may nu nu yàgg koo jàng lool yàgg koo fekke te lépp gën di taw fexe ñu dajee cee ngërëmal sëñ Tuubaa ndax sëñ Basiru ba muy def loola ngërëmal sëñ Tuubaa rek la ci doon sàkku kon nag ngërëmal sëñ Tuubaa la ci doon sàkku ñi koy dégg ak ñi koy jàng ñi koy fekkee ñi koy teewee ñi nga xam ne ñu ngi feneen sax di ko déggee ci fu mel ne télévision bii di Bichri ñoom itam ak fu ñu mën a nekk ci àdduna si yàlla dimbale leen ba tuyaaba ji nga xam ne moom lañ ci seenu fii ñoom itam jot ci euh, muy moo xam ci at dëkk bi lañ nekk moo xam ci diaspora bi nekk moo xam fu ñu mën a nekk euh, yàlla defal leen ci taw tawfeex ba li ñuy yaakaar fii ñoom itam jot ci euh, bis itam ñu koy sant bu baax télévision la boo xam télévision diine la d'abord door nekk télévision murit nekk télévision murit di ci góorlu di ci taxaw kem kàttanam ci taxawaayu rafet yoo xam ne foo mën a nekk ci àdduna bi léegi yaa ngi koy gis dëgg dëgg dëgg dëgg muy dox doxinu rafet yàlla na ko yàlla yokk ba li nga xam ne moom ngeen ci bëgg yéene ko ci yaakaar ko ci yàlla defal leen ko ci noo ngi baal ñëpp àq di ñëpp àq di ñaan koor gi yàlla delloosi ko ci nun ay déwéni déwén déwén yu bari te lépp may nu kàttan ñu liggéey liggéey ko ni ko suñu borom bëggee waaye bu ñu ko defee ba noppi itam mu nangul na ko wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa leen Mbacké yow itam nga yàgg fi lool te wax naa nu fàttali mbokku téléspectateurs yi rek ne ñoo ngi taxawoon ak sëriñ maam Thierno Mbacké mi nga xam ne mooy taawub Cheikh Mountakha Mbacké moom Cheikh Amadou dal ni mu ko waxee moom itam dañ koy delloo ñaan gi di ñaan saa borom guddal aw fanam te yokk ko te yàgg ko fee fekk Mbacké ci jàpp na gëm nu baaxoo defal at mu jot jërëjëf Mbacké xanaa. مريم قد موقنا